am mbégte tey di dalal Seydina Issa Laye Samb di maire bu ñu fal bés fii ci Yoff maanaam ku daaneel fii ci Yoff le ministre Abdoulaye Diouf Sarr Seydina Issa Laye ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di nuyu mboolem mbokk buy seetaan Sénégal 7. ñu fal nit kiy démb ci boppu mairie bu Yoff tey ban santiment moo lay animé. sant suñu borom subhanahu wa moom mi nga xamante ne mooy jox nguur ku ko neex. donc euh, di sant bu baax waa Yoff gépp njabootu Seydina Limaam alayhi salaam di sant Cité Nouvelle yi Nord Foire Ouest Foire ak képp ku ñu àndal vraiment ñu ngi leen di sant di gërëm bu baax la coalition Yewwi Askan Wi ci Yoff ci Ndakaaru ci réew mi duñ ko lim nag te tudduñu si suñu kilifa xalifa Khalifa Sall Barthélémy Diaz Ousmane Sonko ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm macha allah. kër gi fees na de. waaw sant yàlla xam nga boo amee mbokk moom boo amee mbégte dañuy ñëw. donc dañu ñaan yàlla mbegte yàgg fi am yàgg fi ñëw incha allah incha allah. tey sénégalais yu bëri di la découvrir tey boo leen doon wax yow yaay kan exactement lan nga leen di wax. xam nga saabu moom du fóot boppam li ma doon gënal mooy ngeen wàcc ci terrain bi waxtaan ak askan wi ñu wax leen kan mooy Seydina mais ndaw laa boo am fanweeri at ak ñeent nekk doomi Yoff juddoo fi màggee fi yaroo fi nekk nag chef de service à la ville de Dakar vraiment di góorgóorlu daal ci politique ak ci wàllu développement communautaire macha allah. que jël ndam li ci ki nga xam ne ni kàngam la ci wàllu politique parce que Abdoulaye Diouf Sarr yàgg na ci politique ministre de la santé nekkoon maire de Yoff et cetera cetera mais yow fan nga jaar waaje exactement. waaw mais liggéey xam nga équipe la ñu yor ànd ak euh, Yewwi Askan Wi ñu am des équipes de femmes et de jeunes très dynamiques yoo xam ne dara yitteelu leen lu suqali ku Yoff donc naturellement bu ñu àndee am ay pexe parce que du doole. politique du xaalis politique xel la donc bu ñu àndee ak ñoom dox ba yàlla defal ñu ndimbal ah dañuy sant yàlla xam ne lii moom wax dëgg yàlla ndimbalu borom bi la et puis alhamdulilah daal waaw. woo na la Abdoulaye Diouf Sarr en tout cas reconnaître na defetam waaw man nag bëri naa appel manqué mais bosam moom bu amatu moon numéro mais déggante guñu nag mais nag loolu du dara parce que Ablaye euh, papa laa ci moom si wàllu mbokk gi. man it mat na ma bàyyi mat na ma kilifa mag la ci man vraiment on a d'excellents rapports il y a aucune animosité buy dox sama diggante ak moom di ko remercier ci li mu tàmbali yoof ñun ñu fas yéene teg suñu tànk rek foo ko gën a kawe pour njariñu yoof ak njariñu Sénégal incha allahu rabbi mais dafa mel ni tension bi wàcceegul fii ci yoof parce que sànq rek bu ñuy ñëw euh, soufflé nañ ñu ne euh, mairie bi dafa am ñu fa dugg saccagé ko loolu nu mu demee noonu. waaw loolu moom dégg nañu ko amaguñu si lu ñu wóor mais dinañ ko gëstu ba mu leer dañu xamal ne am nay document administratif yoo xam ne salfaañe neen ko mais dañ leen ni xamal rek ne leen administration moom loo mën a def trace am mais ñun ñëwuñu fi pour xeex kan jëluñu maire Yoff pour ay règlement de compte dañ fi ñëw pour vraiment stabilité jàmm ñu ànd bokk ndey bokk bàyyi parce que bu ñu doxalee ci noonu du méngoog axe 1 suñu programme muy la gouvernance ouverte bu ñuy woo l'ensemble des force vives de Yoff pour ñu ànd doon benn say pour utali développement waaw mais ñun moom ay fayuntoo ay defante ay xool lu mu def ak lu mu def loolu ñu lijjanti ñu ko intéressé wu beneen page ubbeeku nga ubbi ko fii ci Yoff ngay ndaw quatre ans donc euh, Seydina Issa Laye Samb maire de Yoff lan moo nar a changé bàyyi ma posé waat question bi lan moo nar a doon sa première décision. boo jotee léegi. xam nga dama doon laaj dañ doon laaj sax autant pour moi baatu askan wi boo jotee baatu askan wi da ngay dellu ci askan wi waxtaanal ak askan wi wax leen ne programme bi ma leen waxoon mu ngi nii kaay leen ñu yaatal ko defar li nga xamante ne mooy le plan de développement de la commune wala le plan d' investissement communal loolu dong la ndax nag bu ñu àndee ak waa Yoff ñu xamal leen fa leen jëm ni ñu fay demee ak naka lañ ci àndee ak ñoom gëm naa ne lépp dina leer réeroo du am te dinañ am ndam ci li ñu dëgmal incha allah. aussi euh, en tant que maire aussi yenn ci ay dossiers benn ci dossier bi muy euh, terrain aéroport Léopold Sédar Senghor bi nga xam ne ni euh, lébu yi ñu ngi doon réclamer pour ñu restituer leen ko am na sax ñu jàpp ne tax na sax euh, lébu yu bëri mere ki fi jóge di Abdoulaye Diouf Sarr donc dossier boobu yow nan nga ci nan nga ko nar a traité. xam nga dossier boo xam ne moom jot jojjatagoo ko mën a goo cee addu waaye bu ñu yegsee ba yàlla teg ñu fa ah dinañ xool laaj ñi nga xamante ne seen xam-xam màcc ci wàllu suuf. ñu xool lan moo ci attitude bi ci commune bi war a jël mais à la kuliyal commune bi soxla na espace parce que boo demee Ouest Foire amuñu caserne sapeur pompier amuñu brigade gendarmerie ñu centre de santé amuñu ay équipement scolaire donc loolu yëpp tey war nañ ko def mais fa lañ ko man defee mais ci suuf si nekk foofu donc mais bu ñu yàlla dénkee ba ñu ñëw ba toog ñu saytu naka la ak nan la ñu ànd ci nag ak ñi ñu ci war a waxal dox ko ñu mm-hmm. nga xam ne Yoff nag dina ci manaam dam am def ci saytu boobu parce que aussi équipe bi fa jógee bëri na lu ñu leen doon joxoñ baaraama tuuma dëgg la du dëgg xamuñu ci wàllum ay malversation financière maanaam pasar pasare alal ak yenn doxalin yu gàll góose yi yow boo jotee di nga def audit xanaa pour xam mbir yi toll xam nga administration c'est bien publique administration dafay am trace boo ñëwee di nga saytu li fi ne xool fan ngay tàmbale loolu mënul ñàkk mais defuñ ko pour chasse aux maanaam dóor ma sàmb dóor ma demba loolu yëkkatiwuñu li ñu yëkkati rek mooy xam li fi ne xam fan la ñuy tàmbalee ak nu ñuy euh, nu ñuy jubbante rëq-rëq yi nga xam ne amoon fi. bu am bu ñu bu bu ñu tegee bët ci yenn ñi nga xam ne ni seen doxalin demeewul noonu aussi bu jaree rëq ndig aussi itam. waaw xam nga collectivité changement moo changement la ñu voté am na lu bëri li nga xam ne nii. xam nga ci wàllu marché public. Mhm. boo ko jëlee ARMP ñooy def audit annuel xam ba xam ndax. charte yi régir marché public respecté nañu ko beneen bi mooy la cour des comptes ñooy ñëw saytu ndax ni ñu téye alalu maire bi ndax leer na donc ñooñu ñoo mën a prononcé ay ay ay euh, ARMP sax mënu ko prononcé mais lii di cour des comptes mën na mën na mën a demander ay poursuite loolu nag ñun du suñu liggéey en tant que maire suñu liggéey mooy xool fexe xam li fi ne lu fi am nu ko ñu ko doxale ak naka ak fan la jëm mais aussi au-delà de Yoff ñu gis ni Yewwi Askan bi dafa def benn razzia ville de Dakar résultat yooyu aussi ban jàngat nga ci yow. waa Ndakaaru ñoo namoon Yewwi seen bopp rek et puis on avait le meilleur candidat Barthélémy Diaz élu le meilleur maire du Sénégal. loolu de rien l'air de rien parce que taxawu Dakar <laughs> moo ñëwaat waaw en Dakar a toujours été notre fief ah fii moom fii mooy suñu fief te alhamdulilah daal. ñu ngi koy téye ñu ngi koy téye indi fu mu toll nii di ko sante yàlla bu wax nag. lan moo nar a changé aussi Dakar aussi. waaw Bart ndaw la am na dynamisme liggéeykat la am na xel am na xalaat am na xarañte donc gëm nañ ndakaaru Dakar dina yëngu ci ak njub ci dëgg ak ci suqaliku incha allah. Euh, bi nga jegee ne falu nga mu leer na ne falu nga kan nga njëkk a woo exactement. non man su ma wéjur laa nekkal donc ñoom laa njëkk a wax résultat yi ñoom sumay mbokk ñoo fi nekk. ñuy jot résultat yi ci saa si mais alhamdulilah waaw déggante na ak suma kilifa Khalifa Sall vraiment muy lu ma lu ma rafetlu di lu neex ci xol parce que moo ñu yar ci politique moo ñu jàngal ci politique moo ñu wóolu ci administration dénk ñu des responsabilités donc kooku it vraiment am na ci taxawaay bu am solo mais wéjur yi daal ñoom la ñu nekkaloon te macha allah sant yàlla alhamdulilah. dañuy témoigner parce que témoignages yu ñu dégg ci yow ce sont des témoignages extrêmement positifs. mais tubaab danaan le pouvoir change les hommes ah est-ce que du ñu xaar Seydina Issa Laye Samb soppeeku ñun ñooy changer pouvoir bi laa la la maanaam ni pouvoir daan doxale di ko doxee ñun ñoo koy soppi mais du pouvoir moo mooy moo ñu soppi waaye loolu gëm nañu ko parce que dañu jeex taksi suñu borom suñu borom boo wéeroo ci moom mu teg la ci yoon bu gën a jub yoon bi gën a baax macha allah. buzz bi la wax ci réseaux sociaux yi parce que dañoo constaté ne da nga xam buzz ci réseaux sociaux yi peut-être jeunesse bi la peut-être <laughs> jantal bi la. buzz avant campagne pendant campagne wala après élection. en surtout après ah. façon wax dëgg yàlla damay wax rek ci yàlla tax démb la ñu am résultat yi démb la ñu yàlla fal mais ba nii suñu téléphone sax ñu koy xool di xool di xew sax jafe nañu ñu ngi jot ay message ñu ngi tontu par benn mais réseaux sociaux yi dañ koy dégg. yàlla seede na ko dañuy dégg ne wax dëgg yàlla yàlla may nañu fa taxawaay mais dañ koy sant suñu borom rek xam ne moom mooy jël nit def ko ci xolu jaam yàlla yi kenn mënu ci dara. ku daan mbëru Macky Sall kay day susciter curiosité sax. waaw mais yàllaa fi ne yàllaa fi ne yàlla lañu yaakaar te mooy joxe ndam waaw. sama campagne wax naa ko xale yi nee naa leen bu ñu ragal dara yàlla moo fi nekk point final rien de plus macha allah. ndaxte man mii rek bu ma yeewoo ñu ne ma gagné nañu Abdoulaye Diouf Sarr lu ma njëkk a xool kan moo ko gagné exactement donc ma lay doog a gis aussi. mais nag yàlla denc na ni ko war a waxee dexe keccax bu gën a yàpp donc euh, alhamdulilah daal. kàddu gu mujj gi. sant sant suñu borom. di wax waa Yoff ne buñ ñu fal ba noppi bàyyi ñu. fal ngeen ñu ñu ngi leen di woo ñu ànd liggéey suñu dëkk. ñu ngi wax ndawi Ndakaaru ndawi Sénégal nañ jël seen responsabilité poste maire député ministre jombul kenn ndax mag ñi maintenant cité lim Alexandre le Grand 32 ans la nelaw bu muy nelaw nag ci fanweeri at ñaar fekk na mu nekk empereur bu mag ci àdduna bi donc pour wax leen ndaw dara jomb ko jubalal gëmal sa bopp gëm dóor waar maanaam ñax jariñ rien de plus macha allah. jërëjëf jërëjëf kon euh, sëy Seydina Issa Laye Samb doon kon le nouveau maire de Yoff yéen ñu doon teewlu ci Sénégal 7 ñu leen di digg daje beneen yoon jërë ngeen jëf.